Nouroudine Diallo et je suis acteur modèle. Donc j'ai fait ce projet, BU, et je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc BU, c'est un projet que l'ONAS vous présente aujourd'hui, un nouveau jeu, avec la gamme Dardar. Donc c'est un ticket. Le ticket est là. Donc pour y jouer, c'est très simple. Il y a des parties de grattage. Il y a le gain et deux zones de grattage et une zone de bonus. non le zone de grattage côté à le Sénégal, et le zone de grattage partie adverse. Vous grattez sur la partie, vous grattez sur la partie adverse, vous grattez sur la partie adverse et vous grattez sur la partie, sur, le, sur la zone du Sénégal. Et si maintenant le score du Sénégal est supérieur à la partie adverse, vous vous avez gagné. Et maintenant, si vous grattez sur la partie gain, le montant, le montant que vous avez trouvé, c'est ce score-là, c'est ce montant-là que vous avez gagné comme gain. Et n'oubliez pas le bonus qui est en bas. Donc c'est quelque chose, c'est un, un ticket à double chance. Vous pouvez gagner, vous pouvez, là et gagner encore le, le bonus. Et le bonus, vous devez gratter encore pour pouvoir savoir quel montant vous avez gagné. Donc c'était ça le but le jeu que l'ONAS nous a présenté avec Darda. Et disons bu Disons bu, s'il vous plaît, les gars. Bu Bu le ticket, dans la cage gain, parce que c'est matérialisé par des buts, il y aura un montant. Mais pour prétendre à ce montant, il faut que le score découvert par le parieur, que le Sénégal soit le gagnant. Hormis ces deux aspects, Vous avez aussi la possibilité de gratter sur la partie bonus. Le bonus maintenant, c'est un, surplus quoi, qui est donné aux parieurs. Cette initiative de la direction générale qui a bien voulu accepter de décentraliser la, les, les, la cérémonie de lancement de ce, de ce, de ce instantané. Donc, c'est pour nous une occasion de magnifier la claire vision de la, la direction générale. Aujourd'hui, l'innovation majeure, donc, c'est la décentralisation des lancements. Nous nous réjouissons donc de cette initiative. Nous remercions également le chef d'agence qui a tenu à faire cette grande organisation impeccable qui marque donc le lancement de ce produit. Euh, c'est l'occasion donc aujourd'hui de donner la, la, la, la, mission, en tout cas de désigner la force de vente qui aujourd'hui est impliquée pour la commercialisation et invitée à dans l'implication de, de la commercialisation de ce produit. Donc, sans plus tarder, je vais leur dire solennellement aujourd'hui que le, la balle est dans leur camp. Il faut qu'ils marquent donc le, le, le bien même les buts. eux avec les parieurs. Nous, nous comptons également sur la participation des parieurs et nous leur invitons à marquer beaucoup de buts. cérémonie bi daanaka réussir na en terme de lancement te xam ngeen li tax ñuy def cérémonie de lancement mooy justement symbolique bi mu réussir pour mën a attirer nit ñi donc am nañu yaakaar ne cérémonie bi ni mu réussir li topp li ci topp yëpp en terme de vente du produit dina réussir noonu. am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que comme ni ngeen ko xamee produit yi but muy produit bu bees Nouridine expliqué na ko léegi ak Fallé dafa nekk produit boo xam ne d'abord cherul ensuite dafa yomb a jouer ensuite euh, maanaam euh, jege na nit ñi maanaam jege na réalité yi parce que laajul benn niveau ay njàng ak yooyu n'est-ce pas te mën nañ ci gagner euh, très rapidement donc loolu mu nekk spécificité produit grattage parce que dañoo am li ñuy woowee gamme daar daar bu mbokk ci li nga xam ne Lonase dañ koy euh, commercialiser am nañ déjà numéro porte bonheur nga xam ne dañ ko lancé depuis juillet euh, ñu ngi ciy am satisfaction bii nekk deuxième bi ci gamme daar daar boobu 200 francs lay jar comme ni ñu ko waxee mën nga am ba 200 000 francs raktak donc loolu dañuy rafetlu teewaayu nit ñëpp tey ak témoignage ñi fi nekk nekk ay partenaires ñu xam ne ñun suñu vision bu bees bi mooy dañu bëgg a dem jege ji ci agence yi def décentralisation suñu amee événement dootuñ ko defee direction général mais ñu dem ci agence yi ñëw nañ tey géejawaay muy bu njëkk mais fas nañ yéene yeneen événement yi ñuy am ñuy dem ci yeneen agence yi ak ci yeneen région yi donc loolu mooy li nga xam ne dañu bëgg nit ñi euh, def li ñuy def yëpp suñu agent yi ak suñuy partenaires yi def ko seen moomeelu bopp mooy appropriation xam ne ñoom ñoo ko moom ñun peut-être ñoo nekk à la tête mais ñoom moom li ñuy def parce que ñoom suñu fi nekkul woon ñoo ñun duñ fi nekk donc loolu c'est extrêmement important comme message loolu mooy vision bi nga xam ne directeur général moom lay jéem pour ñu partager ko ak ñëpp loolu moo ñu fi indi tey donc produit bi yomb na ñëw nañ fi waxtaan ak nit ñi comprendre nañ ko dinañ ko déployer Lonase nag am na benn réseau boo xam ne y a plus de presque 2000 vendeurs 2000 points de vente à travers le pays ci région yëpp dañ fay jaay produit but à partir de tey mais li spécificité bi mooy dañu am tamit beneen réseau additionnel luy ñëw yokk ci loolu réseau additionnel boobu dañu am benn partenaire bu tudd Ludwin bu bokk ak Française des Jeux nga xam ne seen représentant mu ngi fii tey Ludwin dafa liggéey ak ñun liggéey ak ñu am ay espace ci biir réew mi comme Auchan yi donc tey jii tey commencé nañu jaay euh, produit bi ci 18 magasin Auchan yoo xam ne ñu ngi Mbour ñu ngi Thiès ñu ngi Dakar ak feneen ak feneen te dinañ dem ba couvrir réew mi ñëpp dinañ dem ba di jaay but bi également ci ay station d'essence parce que loolu nañu koo convenir ak suñu partenaire Lidwin donc loolu dinañ ñëw gën a faciliter accessibilité wu produit bi donc fu nit nekk mën na dina mën a am possibilité jënd produit bi donc loolu dafa nekk ay innovation yoo xam ne ñu ngi koy def ñun suñu bopp ak suñuy partenaire yaakaar trop nag am njàppale suñu partenaires yi nga xam ne ñooy force de vente bi maanaam ñiy jaay mais également parieurs yi parce que encore une fois ñoom ñoom moom fortune bi waaye réewu Sénégal moo moom les bénéfices de la loterie loolu mooy slogan LONASE loolu nag bés bu nekk dañuy jéem concrétiser ko loolu moo tax démb ak barki démb rek gis ngeen distribuer nañu ci yeneen jeu ay centaines de millions comme ñu naan LONASE dafay créer ay millionnaires te ñu ni yaakaar tamit ne produit but bi balaa ñuy def ay semaine ak ay weer moom tamit muy créer ay millionnaires comme yeneen jeu yi parce que loolu mooy rôle LONASE loolu moo tax ñu samp LONASE loolu moo tax ñu nii ñëpp ñu nekk foofu encore une fois di euh, sant ñëpp di remercier aussi presse bi parce que gis nañ ni ñuy couvrir suñu élément wax dëgg yàlla jaar naa ci ay administration yu bëri mais journalistes yi ak presse bi ak nos amis influenceurs maanaam ni ñu amee fi dynamisme ak activité man mi nga xam ne yàgguma LONASE daf ma yéem maanaam je suis charmé par cela maa ngi leen ciy gërëm di sant encore une fois suñu agence yi parce que ñoom ñooy suñu bras séculier chef d' agence yi ak seen agent agents yi ba ci vendeurs yi suñu taxawee xam vision bi di ko matérialiser ñun daanaka dañuy toog am satisfaction wóor nañ ne dinañu am no résultat à fin de l'année nos objectifs de recette dinañ ko am parce que loolu moo tax ñun ñu nekk fii di liggéey guddi ak bëccëg donc ñoom nañu xam ne ñun ñu ngi seen gannaaw ñu ngi ci gannaaw vendeurs yi ñu ngi ci gannaaw parieurs yi li ci des au niveau centrale avec la direction du marketing et la communication Euh, la direction commerciale et dina ñu yokk suñu pas-pas pour que produit bi am succès bi nga xam ne weesu na sax li ci xalaat tey parce que mën nañ ko parce que réussir nañ ko ci yeneen produit loolu laa bëggoon wax en terme de euh, speech en wolof sant ñëpp gërëm ñëpp encore une fois di lancer officiellement euh, la commercialisation du produit bi je vous remercie. je suis vice-président de l'amicale de l'Alliance de Guédiawaye. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui de recevoir tous ceux qui forment aujourd'hui la famille de la LONASE ici présente au niveau de l'Alliance de Guédiawaye. Euh, nous sommes contents parce que le DG à commencé à faire des innovations en commençant particulièrement au niveau de l'Alliance de Guédiawaye et ça nous som trop fiers de ça nous sommes très émus nous voulons que à partir de maintenant ce que la direction général innove que ça soit une continuité à l'endroit de tout toutes les autres agences du Sénégal et que franchement parler l'agence de Guédiawaye a été une agence vraiment euh, dinamique une agence de référence. Et aujourd'hui, on voudrait, on, on, on voudrait souhaiter que ce que nous sommes de faire au niveau de cette géant-là élargi à travers les autres géants du Sénégal. ñun euh, kontaan nañ ci yéen parce que jaay PMI mooy suñu liggéey nous sommes des vendeurs mooy choix bi ñu def dans notre vie suñu choix mooy ñu nekk ay jaaykatu PMI di def chiffre d'affaires Lonase on l'a fait depuis notre tendre enfance ba léegi. kon ñun kilo rek la ñuy dox donc suñ gisee lépp loo xam ne yokkute la ci LONASE ñun dañ ciy taxaw à 100 pour cent euh, liggéey nag boo gis dafa laaj yokkute liggéey dafa laaj yokkute te liggéey pour mu yokk il faut ñu maanaam il faut ñu wane ko maanaam mbir suñ bëggee mu feeñ dañ koy wane wane ko ci fànn yëpp ci fànnu njaay mi ci qualité service bi ci fànn ñi nga xam ne ñoo koy liggéey ak ci ñoom ñëpp. Euh, su loolu weesoo euh, vendeurs yi ñoom ñi ngi nekk toujours en narmonie avec les agents de la LONASE parce que loolu mooy doxal liggéey harmonisation service bi nga xam ni day am du am benn incohérence lépp day lépp day cohérent loolu moo tax LONASE di dox ba léegi produit yi ñu teg ci marché bi mosul am benn produit bu des ginnaaw produit yëpp ñu ngi koy jaay depuis booba soit muy instantané soit muy PMI muy pari foot ak yu bees yi nga xam ne daf ñoo fekk si bu ci ñëw rek def na temps dem kon innovation yi def baax na trop bon li leen di xamal nag yéen ñëpp moo di euh, LONASE boîte nationale la ñëpp ko bokk ñu amul ku ci bokkul ku parieur ku dul parieur ñëpp ci LONASE lañu bokk ndax LONASE am na volet social bu muy def en dehors des parieurs en dehors des vendeurs da koy def ci biir nit ñi ak ci doomu aadama yi parce que dañuy wax ni la fortune au aux souscripteurs les bénéfices à la nation donc LONASE ñëpp a ngi ci bénéficié wu tout le monde